bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. yow sama mbokk jullit bu jigéen su fekkee bëgg ngaa gën a rafet sooy génn maa ngi lay dénk maquillage bii di ñëw saa booy génn sa kër jëlal saj sa xef bul xool góor boo xam ne daf la araam nga def ko mu nekk sa tusngalu ñaari bët. moo dàq beneen tusngal booy def sa bët jëlal wax dëgg nga def ko mu nekk sa rosa ñaari tuñ moo gën beneen rosa boo xam ne yaa ngi koy def sa tuñ jëlal pérugu islam pérugu muuraay muuraay bi nga xam ne moom la la islaam sant pour aar la si bëtu jàmbur yi nga xamante ne dañu xaraam ci yow nga def ko mu nekk sa périg bi ngay takk sa bopp moo gën beneen périg boo xam ne yaa ngi koy takk jëlal saabu njéggal di jéggalu sa borom nga di ko fóote say bàkkaar moo gën saabu xeesal bi ngay raxasee sa yaram wala nga koy sangoo soxna si sa boitu or nag maa ngi lay sant nga jël jaaro yara ki nga takk ko sa loxo nga jël lamu suufe suufelu nga takk ko ci sa baaraam waaye ceenu fegu ba doo mooy moo gën beneen ceen boo xam ne yaa ngi koy takk sa baat at bi nag islaam moo koy jaay ci centre gëm yàlla directeur ba moo di sellal secrétaire ba moo di jëfee Alfayda c'est la ku ne am nga sa mannequin mais jigéen bi nga xam ne moom la yàlla dénk entreprise am moom moo war a nekk mannequin wu diine ni mu koy nekkee nag mooy il faut mu dem si lu ñuy tuddee marché boo xam ne marché jikko la su demee marché jikko dina fa fekk centre commercial bu ñuy tuddee imaan fekk fa magasin bu ñuy tuddee charia mu fekk fa vendeur bu koy jaay bu tudd xaqiiqa ndax bu ñëwul jigéen du dugg sa équilibre waaye bu paree il faut mu jaay ko tissu bu ñuy tuddee nite ndax boo nitewul rek doo mat yàlla baatin bu ñuy wax kilifa nga xam ne dafay nekk un guide spirituel hors pair su boobaa moom moo koy defal robe miss boo xam ne robe de personnalité bu ñu def ci haute couture la parce que sur mesure lay nekk. Alfayda c'est la référence. ñun ñëpp ay nit diine lañ ñëpp fonk diine waaye diine itam dafa am nu tëralee su demee ba nit ñi war a loru su boobaa am na ay oyofal yoo xam ne yàlla la na ko jullit ñi pour ñu def ko te yonent bi wax nañu ko nañuy moytu yëpp nañ ko topp ngir mucc comme tudd nañ set te set ci boppam ci diine ji la bokk ndax julli sax boo doon julli ji mënoo julli te jàppoo sa cër yooyu ngay raxas dana setal sa cër yooyu yëpp te loolu su fekkee def nga ko juróomi yoon ci bis bi wala ñetti yoon la kon yàgg na kon nag nañ ko topp gel yi ñu wax ne itam ñu koy def ci loxo yi nañ koy def ci loxo yi joxante loxo bi itam su demee ba nekk lor rek ñu bàyyi ko moo gën axafu dara rey ni toujours bu ñu dajee ñaari lor suñ tasee bi gën a oyof la bàyyi bi gën a oyof mooy joxante loxo beneen lor bi bu ñëwee fitna la bu rëy boo xam ne nit ki lu ne dana ko daj ay mbokkam danañ ko daj nguur gi danañ ko daj kon nag nañ seet bi gën a yomb mooy ñàkk joxante loxo te du tere ñu nekk ay c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi yéen itam Al Fayda la référence internationale daal di nag jàmm ci xabaar yi bu ngeen taaxi la tuuti rek ñu jukki leen li ci gën a fës bokk na ci jongante bokk moomeel yi donte njiitu réew maa ngi koy dàq di ko dàqaat terewul l'opposition bi ci Kaolack moom xam ne na ne daañu am ab candidat te doomu Kaolack lay doon daañu ko tànn ci fulla ci xam-xam te mu doon koy defar dëkk bi duñu ko tànn nag ci coow wala bokk ci Niass ana kan ma leen nar a wuutu ci bopp parti bi nag ñu bëri joxoon nañ ci Baye Mamoun Niass daa ngeen ci dégg Cheikh Babacar Dieng wàllu xëyum ndaw ñi jàppale leen ba ñu euh, mën demal seen bopp mooy yéene ak bëgg-bëgg kuréel gii di PSEC alliance ak Kaolack Innovtef ñu duppee rek café de l'entrepreneuriat daa ngeen dégg ci biir xabaar yi tàggat daan ci ak Serigne Moussa li yëg li kay xëyee tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé ca bitim réew Cheikh ak yéen ci yàttal gi xam fàcc bàkk bi lay doon. Le journal Ndeye Khady Sadio. dalee nag jàmm mbokk yi yéen fay Walfayda la référence internationale ngir xabaar yu leex te wóor kaddu gi di bàyyeekoo fii ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Alima wax Lo ko du sekk madame Keneme moo janook man ci wàllu xarale gi mbiru politique la ñu bébi la jotaay xabaar toxal gi ñuy toxal élection bokk moomeel yi ñenn ci askanu Kaolack ñu dajal ci biir dëkk ba indi nañ ci seen gis-gis ñu ëpp ci ñoom jàpp ne jot na ngir ñu amal ay élection Cheikh Tidiane Diagne. jongante bokk moomeel yi njiitu réew mi toxal ko ci atum 2022 bu ñu sukkandikoo ci yenn kaddu yi lu ni mel nag tax na ñi nga xamante ne ñoo fekk baax ci diwaanu Saloum bile ñu jox leen ci kàddu Lamine mu ngi dëkk ci quartier Léona. xaaruñu woon loolu ci état parce am ne bis bu waree daje pour def élection locale dafay jege ak élection législative jege ak élection présidentielle donc boobaa xaalis biy génn ci réew mi dafay bari moom ngay koom-koom moom bu xasee ñàkk ci réew wala mu wàññeeku ci réew moom ci askan bi lay répercuté donc loolu moom vraiment a ci marché central bu diwaanu Kaolack Kabou Dieng mi nga xamante ne nag ci parti bu njiitu réew mi la bokk Farek Mouhamed Ndiaye Rahma moom dafa jàpp ne élection locale yi ñu toxal la lu war la. opposition bi la gën a baax sama xalaat nag lay wax ndax ñoom dañu sàkku nañu auditer fichier électoral bi ba pare comme nag dañ ni koy sàkku te loolu dina jël fii d'ici trois mois te trois mois boo ko génnee si deux mille vingt et un ñu ngi si mois de mars presque dafay jeex su boobaa fekk Touba képp ku mun rek duma keneen ku gisee neneen di Serigne Fallou Diba fareek candidat déclaré bi la di Serigne Mboup moom nag nee na bëgg bëre bañ bëre yaa ngi dégg loolu doonul nag ci ndey doonoo ko ci bàyyi muy dox ba dab la na la biir na ñi ci sa noonu lañ koy jëtee par force bëgg élection bañ élection après day wàcc ñeneen yéeg jarta toxal nañ ko teg ci yoon Macky Sall gis nga réew mi moomu ko ñun sénégalais yi ñoo ko moom ensemble élection la ko fale teg ko moo ko fiy jëlee na ko ci te bàyyi yii bu ñu sukkandekoo ci républicain démocrate bokk ci parti bu APR moom nag nee na ñoom noppi nañu ngir dem ci élection yooyee fii ci Kaolack te am ñu yaakaar ne askan wi ñoom la ñu àndal. kenn ku ne xam nga ku la mën. parce que li ñoo fee la fas mbooloo mooy doole. élection locale yi nag ñu fàttali ne bi mooy ñetti yoon nañu di ko dàq waaye nag askan wi moom dañoo jàpp ne fi mu ne jot na ñu daal di koy amal nu mu gën a gaawee ndax maire yi seen mandat jeex na bu yàgg. cant ak ngërëm ñeel na la Cheikh Tidiane Diagne des ak sa micro njiital l'opposition bi ci Kaolack di Jokal Gadiaga donte ñoom ñi fare ci l'opposition bi nangu woon nañu nañu càmbar fichier électoral bi waaye loolee terewul ngir ñu amal ay élection ci atum bi ñu ne ànd ak di ñaawlu dàq gi ñu koy dàq te teguwul fenn ñu teewlu ko Cheikh Tidiane Diagne dàq nañ ko dàqar ko dàqar te tegu ko ci fenn foo xam ne ni ci argument bu valable pareegul muy xaar ba pare pour mën a organiser élection bu ñu waxee ñu ne opposition bi ñoo waxoon ne nañ auditer fichier bi opposition bi ñoo ko waxoon mais loolu intérêt Sénégal yëpp la nañ auditer fichier bi nañ def évaluation nañ inscrire ñi nañu am fukki ak juróom-ñett ci datu élection yi nañ xool fichier bi ba ñëpp ànd na bi normal la nga xam ne bu ñu demee ci suba ga bu ñu yeewoo kenn kon dem liggéey loolu opposition ba ko waxoon opposition boobu nag ñoo def liggéey bi ba bërkaati dem ba lañ daje ne ci waroon def yëpp def nañ laaj nañ techniciens yi nga xam ne ñoo war a organiser élection ni ndax 2021 ngeen ci organiser élection yi ne na ko organiser ci parti politique nan élection bu mosa ñu maa ko kon léegi nag na tëgg élection yi ñu jàkkoor ak moom non cest à bi dafa ñaaw parce que mandat dafay jeex ndax kuñ fal nga waroon a jeexal nga dem ba muy juróom-ñetti at su nekkoon ci Amérique la ñaari mandat wu président de la parce que ñoom seen mandat ñeenti at kon mandat bi dafa ëpp ñun conseil municipaux yi ci boppam dañoo dem ba nga xam ne ni liggéey bi sax amatoo benn engouement ak benn cawarte pour xam ne dafa mel ni Sénégal réew mu am ñaari alternance léegi nag dañuy exiger nañ organiser élection yi mën nañ ko fekk le li tax nag ñoom ñuy xalaat 2021 ñun xam nañ ne mbir tax ndax dañoo bëgg léegi élection yi buñ ko yóbbu suñ paree nañu ah mënuñoo dem élection locale su boobaa léegi élection législative dana taxu su élection législative taxoo élection présidentielle yi taxu kon troisième mandat bi nga xam ne moom gémme ñëwatu ko tudd foofu lañ ko bëgg jaare d'accord tey duñ ci d'accord ëllëg te lu mu leen jaral jaral nañu nañ organiser élection yi ñoom li ñu wax bu nekkee ne ñoom la population bi wóolu ñoo gagné élection yi ci 60 pour cent ñoo liggéey réew dëkk bi nañ organiser élection yi ndax loolu opposition moo waroon wax ne pare wuñ buñ ko organiser waaye opposition pare dafa am combat et taxawal ko ba mu euh, taxaw waaye itam ko ab tour bu leen di tax a ñu teewlu ko ba léegi ma ngay tontu laaju Cheikh Tidiane Diagne. opposition bi incha allah bi danañ am candidat mais candidat bi du yem ci kam opposition bi rek ndax opposition bi rek duul nañ ñoo war a defar dëkk dañ ne opposition bi danañ am candidat mais candidat boobu danañ xool mboolem doomu Kaolack boo xam ne man nga apporter Kaolack dara ci sa xam-xam ci sa jikko ci sa alal ci sa fulla ak sa fayda ñu daj ak ñoom tànn un bon candidat boo xam ne candidat consensuel lay doon duñ ko wote duñ ko xëccoo waaye ñëpp ay xam ne diw mii kat buñ ko tànnee candidat benn buñ danañ gagné élection yi ñaari bu ñu ko gagné dina defar dëkk bi ñetteel bi population bi dana sentir ne kii nga xam ne fal nañ ko defar na dëkk ndax Kaolack wax dëgg yàlla méritewul situation bi nga xam ne ci lay nekk fi mu nekk nii boo duggee ci biir xool li des feeg nawet bi nga xam ne yàlla ma yàlla baaxal ndoxam yàlla la moo ko moom heure bu ko neexee la koy indi mais daaw mu ngi taw ci te dëkk bi yëpp gas nañ koy pax kon yaakaar naa ni ñi doon wax ak ñi nga xam waxtaan kon équipe bi ñu bëgg a teg dañ ñu mu tudd équipe boo xam ne Kaolack équipe bi tudd nga xam ne mboolem kuy doomu Kaolack bëgg dëkk bi ak fànn boo xam ne ni ci nga yëngal sur le plan économique sur sportif sur le professionnel sur le plan culturel daj ñu tànn une bonne équipe équipe nag dafay am capitaine ñu tànn benn capitaine boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci d'accord yàgg na wax ne liste bu ñu def ci jëm ci ay am na tur yoo xam ne bu fi am tur yooyu buñ ca nekkul liste ba du gañ boobaa li fi nekkoon du fi nekk rek déedéet li fi nekkoon du fi nekk parce que fi mu nekk nii changement bi am mooy d'abord bu njëkk liste moo doon ñu tànn ci liste ba maire loolu amatul bala ñoo dem danañ xam kan mooy nekk maire parrainage bi yaakaar naa ne loolu moom ca dialogue ba gars yi waxoon nañu parrainage bi moom dañ koy dindi mooy tax mu neex bu ñëpp laajee ñu seet nag léegi ñi laaj kan ak kan la Jokel Gadiaga wute lool gis-gis ak Mamadou Soukeye Ndiaye mi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom nag la mu xamle mooy dàq gi ñu dàq élection yi yàqu ci dara ndax dina tax ñu jooyanti ci ay mbir yu bëree bëri donte nag l'opposition bi ci jëmu boppam nee na moom moo ci njëkk euh, ànd la muy sàkku nag mooy ñu bañ koo toxalaat rek atum 2022 euh, Mamadou Soukeye Ndiaye ma ngay tontu laaju Cheikh Tidiane Diagne ci ab jokkoo. élection locale yi li ma ciy wax rek mooy euh, dàq bi du respect calendrier démocratie moo ko soxal réew moo xam ne aussi bëgg lu leer moo ko soxal calendrier électoral dañ ko respecté waaye nag Sénégal dafa nekk benn situation boo xam ne parti pouvoir bi comme parti opposition bi ñu ngi si kuréel bu def dialogue national te si biir dialogue national bi dafa am ay ponk yoo xam ne dafa lëkkaloo ak élection yooyu maanaam si wàllu parrainage bi si wàllu fichier bi si wàllu caution bi comme nag ñu ngi waxtaan pour seet ni ñuy dindee parrainage yi yàqul dara parce que mooy nañ ko deux mille vingt deux neen fexe rek vraiment que ça soit camp présidentiel comme camp opposition yi fexe daal ba tenir ko en deux mille vingt deux incha allah. mais deux mille vingt deux boobu moom la opposition bi di bañ. waaw moom la opposition bi di bañ tey. mais nangu woon parce que ñu nekk si dialogue national bi ñoom it bëggoon nañ vraiment parce que xatoon na parce que décision yi parewutoon wax si wàllu parrainage bi ñu ngi donc loolu yëpp tax na ñu war a waxtaan defaraat loolu ba élection yi ñu mën ko toxal ba jëmi jamono jëmi jamono jooju nag muy deux mille vingt deux ñu fexe tenir ko. ndax euh, coalition Benno Bokk Yaakaar day wëy ci élection yooyu wala parti bu nekk day demal boppam. en tout cas ci élection locale yi ça dépend ci gox yi am na gox yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar nañ di demee am na gox yoo xam ne du ñu demee Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar day am ay candidats yi du Kaolack rek Sénégal yëpp am na foo xam ne daal Benno Bokk Yaakaar mën na fa dem am na foo xam ne it Benno Bokk Yaakaar dafay am ay candidats am comme ni ko seneen di amee. noppi ngeen ci waxtaan yu file. Kaolack non non waxtaanaguñ jégguma benn commune bu ñu waxtaan en tout cas daal ñu ngi si dynamique Benno Bokk Yaakaar élection locale nag élection locale bu doon présidentielle la wala législative loolu xam te national mais local moom local la ñu mën a ànd ñooy ànd. ñu des ci mbiru politique ba léegi junjoon nañ leen ko ci bopp xibaar yi ay weer gannaaw ba mu wàccee liggéey moom mu fi jiite woon parti rassemblement pour le peuple di Serigne Mansour Niass waa RP delloo nañu ko njukkal moom ak woy juróom bu góor di Serigne Mamour Niass ba noppi wàccee leen itam kaka nara wutu ci bopp parti bi Cheikh Babacar Dieng. rassemblement pour le peuple mu ngay jooy kaka jiitu woon te génn jamono di Serigne Mansour mu Serigne Mamoun. Adja Kinelo jiite jigéen ñu bokk ci RP ci région gu Kaolack. Mansour taxaw taxaw taxawaay bu jëkk taxaw taxawaay fi taxaw taxawaay jëm am yar am kersa am teggin sàmm kóllëre baay mi yal nañu ko yàlla fayal gàtt fan rek lañ jooy ci moom mais lim taxaw ginnaaw Serigne Mamoun kenn mënu ko romb te xam nañ ne ñaanu magam moo mënoon nekk ci loolu Baye Mamoun Niass yow ku la am am na yàlla dañ doon delloo njukkal ñaar ñii di Serigne Mamoun mi taxawal parti bi ca 2003 Serigne Mansour Niass mu ko ci wuutu ca 2012 wàccee nañ leen kaamil waxtaanee seeni mbaax ba noppi nag fa yéene leen a uutu Mamour Essa Ba moo jiite RP ci région bu Kaolack moom dafa joxoon Baye Mamoun Niass ne moo war wuutu Mansour Niass ci boppu parti bi loolu laa bëggoon parce que bugguma sëñ Mamour bàyyi fi dara mu yàqu ci say loxo parce que fi nii say loxo la war a ñoom bi ñu woote fii woowu ñu woon bureau politique yëpp de ay nit rek la ñu woowoon ñu toog keroog sa yaay sax toog na keroog waaye la ma waxoon ma ne parti kenn mënu koo gàddu ci yéen ñii bu ngeen àndee nii rek gàddu gàddu parti parce que sëñ Mamour dafa diis wax ji daanaka ku jël cadre rek da nga ci xaw a boros donte na bureau politique nekkul woon ci ndaje mi waaye ñu doon wax fësal nañ seen yéene Ablaye Thiam mi taxaw ndaje gi am jàpp ne candidat bu gën a walaabul Baye Mamoun tey ci bopp RP amut ci miim réew gisuma figure tey ci biir RP ku am charisme Baye Mamoun mën a am gisuma ko man dalee sama bopp ko moo ko créé mën soo lu ñu ëlu woon ko bàyyi dénk ko d'accord ci mu def ci lu mu mën ba dem kon bu yàq doomu sëriñ maamun yu bëri ci politique fekkee si woon nañu ko tonte ne ñi ngi yëngu ci yeneen parti waaye ne loolu yëpp nag ñàkk doxu RP moo leen fa yóbbu ku ci mel ni Baye Thiam Ahlan bu dingaraay Malonde dëgg la de maa ngi ci APR di liggéey président Macky Sall waaye man naa wax na lépp lu ma ci mën a am tey ak fu ma ci mën a toll tey Cheikh Mamadul Mamoun la muy Serigne Mamoun mu am fu ma tegoon lool nag docteur Pape Moustapha Fall moom sax moo ci gën a sori ndax parti boppam la yor bu mu génnee RP nee na waaye bu ñu defaraatee parti bi pare na pour yokk ko doole te bëggu ci benn ndomba tànk ci wàllu considération politique de la vie de Serigne Mamoun suma parti ak ay instance am fépp fu RP soxlaa jaxasoo wala ku leen dooleel ci bërëb wala lu leen dooleel ci ànd sama parti pare na pour taxaw joxe lépp te soxlawunu ci dara soxlawunu dara bu kaa wax soxlawunu dara du secret rajo yaa refus de décret présidentiel yu ma fal ma delloo ko kon nekkuma ci ay posture de décret et de nag ñu bëri jamono jii joxoñ nañu ko ne moo war a jiite parti bi waaye moom ci boppam nag nee na bu ñëpp d'accord te coow amul dina leen ko nangul. delloo la njukkal yow itam Cheikh Ababacar Dieng de sexe micro ak waa parti RP Abdoulaye Thiam moom gis-gisam mooy faaw ñu jooyantiwaat parti bi jaaxee ko ci texte ya fi ne woon ngir rek mën koo doxalaat gannaaw ba nga xamee ni ñetti at ci tey ba léegi parti baa ngay nelaw ñu teewlu

boobu bàyyi moon fale ci néeg maa ngi toog faat Ablaye Wade di ñëw fii jaale bàyyi moon ngi toog maa ngi toog Hamada ngi toog keneen a ngi toog keneen mu ko fale lii la dafa ne ko Mansour man yenu naa diine ji ak kër gi waaye na xam ne Serigne Mamoun du dee man maay dee waaye Mansour doy nga ma ci politique te yaa bokk ci instance bureau politique kon jiiteel parti bi waaye del diisoog ñun maa ngi toog de kenn nettali ñu pare Baye Mamoun dem kër Serigne Cheikh cadre tout ba def congrès méridien keroog mun solu costume ci la defee déclaration bi muy def bàyyi maamu nu ñooñaan def kon nous sommes dégg naa ne rumeur yoo Ablaye Diam dafa bëgg a samp bàyyi maamu nag dafa bëgg a samp man ku laaj parti bi am naa droit laaj ah, man ne pour le peuple bi ñu créé 2003 ca Diourbel ci initiative Serigne Mamoun ña ko créé ñu fii ña ko fekke bari nañ tey jii li ñuy waxte waxtaanee mooy rokkos jëfi Serigne Mamoun fullaal fayda kaset yaa ngi schéma bi lii la mooy képp ku nekk da nekk département wala commune su dee bëgg nga RP bindul RP nekkal RP toppal teg si waaye demal sa base dajee def structure de bureau au niveau communal wala départemental fan la nga ñëw bokk comité directeur ñooñu taxawal bureau politique ñu dem liggéey te dafay am ay superviseur dans chaque zone commissaire politique parce que dañoo fal ci këyit nii rek ak wax ci këyit loolu dafay jaral dara nag jaral ma lu ëpp loolu man du ma rey sama doom te noonu ko rey utuma ci fas sumay jiitu nag ça je le waaye danaa seet sama xel ko am charisme bi ko am ko am fit bi ko am xam-xam bi ko am ité koo xam ne danañ ko xoolee jëmi sëriñ loolu maa ko wax te bay maan wi la tànn Abdoulaye Thiam docteur Pape Moustapha Fall jàpp ne test yooyee nga wax buñ ci buñ ko naree toppaat daañu laaj la mu gis mooy faw rek njabootu sëriñ Mamour Niass toog waxtaane parti bi tànn ko ko war a jiite nañu ko yàgg defee ñu teewlu ko Cheikh Ababacar Dieng kon la politique de Serigne Mamoun dépasse le rassemblement pour le peuple c'est une politique globale kon bu ñu wax la consolidation politique de Serigne Mamoun bu ñu def confusion ci RP nañuy wax wala ci leneen nañuy wax bu fekkee da ngeen bëgg topp yoonu texte daa ngeen am ay difficultés yu rëy ci jamono ji ngeen nekk gis nga bi ma jógee Màkka àndoon ak bureau politique bi Màkka ñi desoon Sénégal ñëpp dañu ragaloon ni docteur Fall heure bu ñëwee rek dana nangu xam ni l'héritage bu ñu mën a continuer suñu liggéey il faut que poste premier serviteur dellu ci njabootu sëñ Mamoun mais boobu bu fekkoon ay texte nañu topp Mansour du falu man maa doon numéro deux du parti mënoon foofu topp suñu ay texte ñëw imposé wax maay falu yóbbu ko bureau politique yóbbu ko comité directeur mais on l'a pas on a fait la te bi ñu defee loolu ba sagesse ba ni le premier serviteur affecté nañ ko si nañu soogaa di oote conseil national comité directeur congrès pour valider gëm naa logique boobu nga xamante nii moo conduiroon ba nu bu mu génn njabootu sëñ Mamoun gëm naa man docteur Fall logique njabootu sëriñ Mamoune toog seen biir waxtaan seen biir nangu ni jiital lañu kii pour yombalal liggéey bi ñu nekk ci gannaaw bu boobaa ñi nekk ci gannaaw kenn ku nekk da nga xam fi nga mën a taxawee gëw naa ni man ñaari mbir bu na pour nekk premier serviteur gëm naa ci li ma xam RP amul kenn ci RP ku koy xëccoo ak moom gëm naa ko kenn du brandir ay texte pour jàllale ko fa te danger bi ci nekk te ma mën ko wax ndaxte dama nekk ci terrain politique bi yëg naa ñi nga xamante ni bokkunu RP mosuñu xam luy RP ñoo ngi doxawaalu ci suuf pour nangu RP ci parti dëkk bi ci champ politique bi am na li nga xamante nii bu ngeen ci nekkee ba fexe ba force bi bàyyeekoo ci njabootu sëñ Maamoun bàyyeekoo ci baay bi leen jiite ñeneen daanu jël parti bi yóbbu ko fu ngeen bëggut RP gannaaw bu mu demee ba fal premier serviteur am daf ay instance am deuxième action bi moom mooy commence s'élargir surtout les forces politiques et sociales qui sont au Sénégal à l'intérieur d'un grand rassemblement pour être une force en 2024 xam nga pourquoi ma wax ko RP gi ma xam gis nga ñi toog fii ñëpp buñ fi jóge woon RP dana dem yoonam RP bi ma xam réew mii di Sénégal jiite wala képp ku ko jiite da nga wax moom mais RP boobu ban RP la RP boobu mooy RP bi nga xamante ni dañu jog pour changer tout ce qui est à l'intérieur yéen a déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñaareelu pàcc bi ca dëkk bu sell bi di tubaa Mbacké la ñu jëm coow li jeex na tàkk ci juróom fukki million ya ñu na ña jëlee ay gaañu gaañu ak njabootu ña loru ci yëngu-yëngu yaamoon ci réew mi xalif général di Mouride di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ma leen ko jagleeloon tànn na waa Hizbut Tarqiyyah ngir ñu amal séddale gi xibaar ba nag ka fësal mooy ka yore kàddoom ko ci ab communiqué Mamadou Moustapha Mbaye mujj na noo xam juróom fukki million yi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké xalif général di Mouride jëloon na ko ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo amoon ay gaañu gaañu ci yëngu-yëngu yu amoon ci biir Sénégal ak njaboot ñi nga xam ne dañu cee loru 50 millions yooyee daal mujj noonu wax ne kon moom daf ko jébbal daayira Hizbut ya ci benn communiqué bu nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre porte-parole du Khalife général des Mourides moom moo ko fësal nee na kon koppar yooyu daal jox nañ ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci Hizbut Tarqiyyah ngir ñu jox ko ñanu ko war a jox ñuy fàttali ni kon coow loole mi ngi amoon waaye nag Serigne Mountakha Mbacké ci boppam bi nga xamee ni am na yëngu-yëngu yu amoon ci biir Sénégal rawati jotoon na yabal benn délégation bu nga xam ne Serigne Bassirou Mbacke Porokhane moo ko jiite woon mu àndoon ceeg Serigne Bassirou Mbacke soxna su Assou Fall ma di Niang ak honorable député Mamadou Diop Decroix waaye ñu ànd ak Mokhtar Souran ñooñee ñeenu yabaloon nañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy waa kujje politique gi ak ñi nga xam ne ñooy waa société civile loolee bokk na ci di tax jàmm dellu si ci biir Sénégal Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. yéen a ngi xibaar yi ci Alfayda ñetteelu pàcc bi ñi ngi ko jagleel xëyum ndaw ñi jamono ji ñu koy waxtaanee muy seen xëy ñoom ndaw ñi ak lu leen di euh, tàggat plateforme de cadres pour l'émergence de Kaolack PESEC lëngoo ci alliance française ak Kaolack Innoftef ñoom nag amal nañu ci njeextalaay bés bi ñu génn am ndaje ci biir alliance bu euh, kawlek jagleel ko ndaw ñuy yëngu ci mbiru entrepreneuriat ana nan lañ ko tuddee Cheikh Tidiane Sarr. jàpp leen mu ngi tudd café beneen gis boo xam ne kuréel gi ñuy wax PESEC di plateforme des cadres pour l'émergence de Kaolack lëkkaloo ceeg alliance bu Kaolack ak structure bi ñuy wax Kaolack Innovtech indiwaat nañ ko ngir gën a mayaat chance ñii di ndaw yi ñuy waxtaane lépp lu jëm ci tàggatu entrepreneuriat maanaam demal sa bopp Ibrahima Faye mooy président commission entrepreneuriat ak développement local ci kuréel gi ñuy wax PESEC. café de l'entrepreneur boo ko déggee mooy ndaje bi nga xamante ne ay entrepreneur ñu ngi yëngu ci wàllu wutal seen bopp dara mun a daje ak ñi nga xamante ne ñoom la fi nguur gi teg wala ñi nekk ci privé bi mais di jàppalante seen biir ñu mun a toog benn diir lu tolloog ñaar ba ñetti waxtu di waxtaan ci problème yi nga xamante ne waa Kaolack jeune Kaolack yi ndawu Kaolack wala liggéeykatu Kaolack yi ñu ngi koy jànkonteel chaque jour te ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ fi teg pour ñu indi ay solution aussi mun du ci wax nit ñi lu leer. wax leen lu leer ci kaw ñu indi sekk ak ay partenaires ngir yombal mbir mi rawatina ci waxtu bi nga xam ne moom la ñuy wax waxum xëyu ndaw yi ak financement yi nga xam ne président de la république namm na ko indi fii ci mim réew di Sénégal. tey nekk première édition bi ñu invité kuréel gu mel ni Agri Jeunes di benn kuréel bu ñuy teg bu bees kuréel bu am doole boo xamante ne day liggéey ci wàllu agriculture di ci accompagner jeunes yi ñun lépp loo xamante ne li tënk nañ ko fi muy jeunes yi nga xamante ne waa Agri Jeunes identifié na leen pour jàpp ne ñoom gis nañ ne seen mission war nañ leen mën a jàppale ñun si ginnaaw dinañ leen ci topp parce que lii première édition la rek comme ni ñu ko waxee ñaan nañ yàlla di ko pérenniser di ko def benn rendez-vous chaque weer ñu daje fii xool li ñu fi jotoon a def li ñu fi jotoon a wax fu mu toll te duñ ko bàyyi comme wax rek dem mais di wax di topp li nga xam ne tënk nañ ko fi di ko teg sur place. mu doonoon waxtaan bu am solo ndaw yu bëree bëri di ay jeunes entrepreneur ku ci nekk ñëwaat ci projet yi nga xam ne namm nga ko taxawal wala sax taxawal nga ko fii ci mim réew di Sénégal rawatina ci diwaan bii di Kaolack autour du café de l'entrepreneuriat mu doonoon café gu saf suukar neex naan lool ndax njëriñ yi nga xam ne génn na fa. baax a baax Cheikh Tidiane Sarr desandi ci mbiru xëyum ndaw ñi ba léegi lu jëm nag ci loolu waa ONG Vis ñoom ña ngay wéyal seen programme ba ñu adupe vivre et réussir chez moi ci biir région bu Kaolack ña nga woon ca Nioro doon fa tàggat ñay tàggat ndaw ñi foofee ca Nioro ak cam ca euh, Mbadakhoune ñu duppee ko rek formation des formateurs Gisali Ndiaye di chef d'antenne bu Kaolack mi ngi ci micro bi yaay. ONG Vis nag mi ngi nekk di dérouler depuis 2018 projet bi ñu wooyee recherchement vivre recherchement boo ko déggee projet la boo xamante ne dafa jagleel wàll bu am solo mbiru tàggat jeunes yi ba nga xamante ne liñ soxla ci compétence dans le marché du travail ndaw yooyu buñ génnee dans les écoles ou bien dans les centres de formation pour ñu mun a ànd yooyu ci cadre boobu la ñuy dérouler tey jii nii formation des formateurs nga xam ne c'est une formation en cascade ça veut dire dañuy former formateurs yi pour que ñoom ñu mun a tasaare ci ndaw ñi ak ci ndongo yi compétence yi nga xamante ne jël nañ ko ci maître artisan bi di jaam auprès de l'apprentissage de ces apprenants et des compétences relatives notamment à la menuiserie aluminium dañoo seetlu ne bi ñu ñëwee fii nii dañoo def suñu enquête ñu xool lan la nit ñi soxla en compétence da nga jotuñ koo am wala bu ñuy génn duñ ko am parce que lu mel nii liñ ko doon réglé avant ñun ñuy ñëw c'était que dañuy doon former les apprenants ñu gis ne booy former apprenant bi moom bu génnee day dem ak ay compétences am au lieu ngay former donc apprenant bi ba tasaare ci moom xam-xam boobu ak mën-mën googu looloo tax tey jii nii lépp li nga xamante ne aajo na ci wàllu aluminium defe naa ne CFP Nioro ci boppam boo seetloo infrastructure yi fi nekk gis ne bëri na ci ay ouvrage en aluminium ndaxte aluminium tey jii nii képp kuy tabax bëgg mu am qualité bëgg mu rafet defe naa ne aluminium di nga ko ci boole la mu ca yokk nag mooy képp ku ñu tàggat ba noppi daañu la topp ngir saytu sa liggéey xamle itam ne duñu ko yemale rek ci mbirum menuiserie waaye itam ne day leeral ci lu waral ñu tànn menuiserie métallique ak aluminium ñu teewlu ko ba léegi ak noa bi yaay donc loo xamante ne la ndaw ñi buñ ko amee buñ génnee du ñu ñàkk marché du travail moo tax ñu ne balaa ñuy song beneen formation gannaaw bi ñu defee une formation en coupe à main levée dañuy song li nga xamante ne moom menuiserie aluminium beneen yoon incha allah ñu attaqué waat beneen besoin en formation mën na nekk ci élevage na nekk ci agriculture waaw dëgg la mbiru suivi bi ak euh, li nga xamante ne mooy yeggali suñu programme parce que comme ni ma ko waxee sànq ñun suñu formation yi dañuy bëgg à chaque fois ki ñuy defal formation jëriñoo compétence wala ñiy jëriñoo formation fa lañ dëkk bu ko defee ci contrat bi ñu lii ak moom da ciy bokk muy ñëw ci centre bi di xool ndax li mu jàngaloon formateur yi ndax ñoom ñu ngi koy appliquer ndongo yooyu moo tax à chaque fois bu ñuy choisir dañuy choisir benn formateur boo xamante ni il est au niveau local ndax mu mun a continuer suivi notamment avec le centre de formation et les autorités académiques tey jii nii def nañ ba pare ci wàllu aluminium na beneen yoon aussi dinañ def ci beneen wala ñu ñëwaat renforcer waat leen ci beneen pàcc comme ñoom ni ñu ko sàkkuwee toujours ci mbiru aluminium ñun soxal mooy fexe ba nga xamante ne ndaw yi génn ci centre yi am xarañte am kàttan am tamit euh, maanaam compétence yi nga xamante ne moom lañ soxla ci marché ba nga xam ne buñ fa demee di mën a liggéey. Souleymane Thiam di kenn ca ña ca doon tàggat ci mbiru mbirum menuiserie métallique moom nag euh, la mu xamle mooy li ni mel du euh, gulet ndax am na benn kuréel bu ko fi mosoon a tàggat ci mbiru aluminium ñëwaat na itam ci njëriñ li nga xam ne rek tàggatu am na ko ñu teewlu ko na benn projet bu ñu doon maanaam doon recruter ay maître artisan di leen fekk seen place na leen léegi dañu bëgg seen xale yi ngay jàngal seen atelier yi dañu leen bëgg ñu am formation bu baax bu am qualité en menuiserie métallique ak en aluminium donc mun naa ne si jéego boobu lañ nekk nii ba tey man nag jamono yooyu lañ ma jël tàggat ma si aluminium kon buñ demee di dema dem ba ay formateurs yu nekk si ay centre aussi ñoom it xëy na bi ñuy def seeni formation dafa ñëwoon alu ñëwaat si man kon loolu dafa mel ni ba léegi ñu ngi si yoon dafa doon transfert de compétence man noonu laa ko jàppee dafa doon li nga koy jël dugalaat ko si ñeneen lii si man la jógee ngir ñëw si biir centre bi centre bi ay xale lañ yor kon ñoom xam-xam bi buñ ko téyee joxaat ko xale yi foog naa luy yaatu ak njëriñ foog naa mun na yegg fu nekk xëy nga ko jox sax xale élève mu pare génn si centre bi saa utaa sax mu dem am place wala mu liggéey su ko defee xam-xam boobu mun na naax saa yi parce que mënoon si man directement ñëw si xale mais léegi dafa jógee directement ñëw si professeur bi nga xamante ni mu ngi si centre bi kañu toftal ci préfet bu euh, mel day jëmmal bëgg-bëgg njiitu réew mi euh, Macky Sall te it nag ñoro euh, pare na ngir def rek li nga xam ne moom mooy formation professionnelle Maguette Ndiaye ak Noa Biaye. doon tëj li ñuy wax benn formation wu formateur maanaam tey ñi nga xam ne ti ñoo war a yore xale yi ëllëg ñu ngi leen di formé ci menuiserie métallique notamment ci aluminium ñoom lañ doon tey jébbal seen ay diplôme loolu nag dafa tombé président de la république jox ñu ay instruction ci conseil des ministres ba la ñu génn mu ne dafa toll ci jamono joo xam ne ni dañoo war a saytu gëstu naka lañ mën a def ndaw yi tey am liggéey déjà ñu am formation ba pare ñu ci jógee am liggéey loolu nag li ma ciy rafetlu mooy ONG VIS xaarutoon sax loolu parce que formation bi wàcc nañ ko lu yàgg dafa ñëw fekk loolu donc loolu la ñuy wax ni tomber waral ay gaaf donc di ko rafetlu parce que tey Nioro état defar na fi sant formation boo xam ne ni tey képp ku nekk Sénégal xam nga ne Nioro nekk na tey ëpp de la formation professionnelle maanaam ci dëkk yi nga xamante ni ñoo ci ëpp infrastructure bu ñuy wax waxu formation professionnelle département Nioro département bi am na un plan ambitieux maanaam tek nañ tey loo xamante ni nii buñ ci sukkandikoo war nañoo mën a développer war nañoo mën a ñongal formation professionnelle fii ci biir département bi parce que nag bu ñu fàtte ne formation professionnelle warta nekk nag nit ñoo xamante ni nii rek dañoo échoué si enseignement général dafa war a nekk nag léegi man toujours loolu laay wax tey élève bi nga xam ne am na BFEM dafa war a mën a choisir ne damay tànn formation professionnelle defuma enseignement général wartuta nekk dépotoir bu ñu dàq rek troisième amoo BFEM wala amoo bac say parents yóbbu la ci centre de formation professionnelle. dañuy jóge ko Nioro di siwaat fii ci Kaolack dem seeti ñeneen nañu ñu tàggat muy jigéen ci parti socialiste ñoom màggal nañu weer wi ñu jagleel jigéen ñi jaare ko ci tàggat ñaar fukki jigéen ak benn ci nu ñuy defaree saabu ci jamonoy mbas mi ñu ne mu amee nag ci ndimbalal Serigne Mbaye Thiam Ndeye Soxna Gueye ak Cheikh Ababacar Dieng. dañu fi nekkoon démb ak tey dajale ñaar jigéen ak benn ñu jógee ci suñu ay comité ay section ay coordination pour euh, waxtaan ak jigéen ñi. nekk xam na ne dañoo nekk ci weeru jigéen ñi muy mois de mars ñu nag dañu xalaatoon ne suñu façon pour euh, vraiment fêter la femme wala def lool ci mois de mars bi mooy ñu sàkku ci xam-xam sàkku ci xam-xam bi ci kaw jamono ji ñu nekk nii nga xamante ne jamono coronavirus la ñu ne nag dañuy jàng naka la ñuy defaree saabu saabu boobu ñuy defar dina tax ñu mun a xeex ci corona bi parce que dañ ne ci corona bi danga war a raxasu ak saabu lu bari da nga war a laal da nga war a jël masque da nga war a vraiment jël distance waaye yaakaar naa saabu am na ci solo ñun tam ñu tànn ne dañuy jàngal ay jigéen naka la ñuy defaree saabu non seulement dinañ ci mën a xeex ci mbas mi ñu nekk ni waaye dinañu mën a aussi dimbali tam ëllëg ci si mu nekk mbir moo xam ne mën na indil koom képp koo xam ne jigéen nga te nekk ci parti socialiste te nekk ci comité wala nga nekk ci section te am xam-xam bu ni mel mën na la dimbali aussi ci sa njaboot parce que ku nekk xam ne ñi ngi jëm ci nawet xale yi am na moment yoo xam ne dañuy am ay euh, góom seen yaram ak bi ñu defar savon boo xamante ne ci loolu la baax ndax mbër bëf lañ ko defee ku antiseptique loolu lañ ko defee kon loolu dina jariñ jigéen ñi nga xamante tey ñoo fi nekk tey d'abord bu ñu remercier suñu ji di parti Aminata Mbengue Ndiaye dañu tey moo war a tax ñu war a def formation bi de deux jours boo xamante lépp lu ci war def nañ ko fekk si nag loxo responsable la yi nga xamante ñoo nekk fii ci Kaolack waaw tey ñaar fukki jigéen ak benn moom lañu jëloon ci comité yi nga xamante ne ñoo seq ñetti coordination Sénégal nu ñuy defaree produits locaux ay cereek ak yeneen ak yeneen am na ñoo xam ne daañu def fruits et am na ñoo xam ne dinañ def yeneen i yeneen i formation en daal li ñu bëgg a wax daal mooy am nañ beneen tëbi nag beneen gis-gis boo xamante ne daal muy jëm ci politique dinañ ko lënkale ak li nga xamante ne mooy activité de développement te loolu am na solo ka fa teewaloon Serigne Mbaye Thiam di Pape Mbaye responsable politique parti socialiste ci commune micro Cheikh Ababacar Dieng. je pense que gunge jigéen ñi. Euh, nuñ koy defee yomb na. parce que ki ngay gunge mu yomb mooy ki nangoo dem. ak ki bëgg a dem. et je pense que ku gis tey initiative bi jigéen yi def. di defar ay saabu. pour que xeex non seulement corona bi parce que raxasu ak saabu dafa bokk ci li ñuy xeexee corona bi. mais aussi pour am loo xamante ne dañ ci dugal seen poche ba am dépendance financière. kooku aussi je pense que ñooñu neex nañoo gunge. gunge leen bi aussi yomb na. parce que ñoom liñ mën te ñun mënuñ ko ñu ngi koy def ñun liñ mën te ñoom mënuñ ko dinañ leen ci jàppale. je jot na pour ñoom ñu ndokkeel leen sargal leen ci weer wi mais aussi di gërëm ki nga xam ne moo initié lii te jiite jigéen ñi muy Ndeye Soxna Guèye parce que tey ku ne xam ne ne jot amul mais bàyyi nañ seen lépp ci fan yi pour que ñëw taxaw non seulement pour defar saabu boo xamante ne ku dem sa gox di nga mun a former ñemeen mais di nga mun a indi jumtuwaay yuy xeex pandémie bi mais aussi di am loo xamante ni wa illaa mun na la indil sa dërëm sa ñaar dërëm pour nga mun ko def ci sa bopp effectivement que ci parti nag moom ñun liñ gëm mooy jigéen du supporter jigéen duñ ko yóbbu ci au second rang liñ gëm ñun jigéen dafa bokk ci liy développé réew wala sax ñu ne sans jigéen réew du développé donc ku mel noonu tey boo ko amee wax dëgg yàlla war nga ko permettre moom mu am benn épanouissement bi war nga ko permettre mu am benn indépendance bi te indépendance bu ñu ko waxee sur le côté financier sur le côté matériel sur le côté moral et cetera donc tey ñoom ñu jóg pour jàppale askan wi defar seeni saabu lii ñu jaay lii ñu maye lii ñu dimbalee seeni nit je pense que day wane rek ne partialiste mooy parti bi gëm jigéen bi dundal jigéen bi jox jigéen cëram waaw xam nga moyen moom bu ko waxee rek suñu borom moyen bi njëkk mooy gëm-gëm ak engagement te jigéen ñi nekkal am nañ ko la ca des ñun au niveau local responsable li fi nekk wax dëgg yàlla de indi suñu buy ak suñu daqaar pour que loolu jëm kanam la ca des mooy ñu pousse tuuti ci au niveau de la hiérarchie ku mel ni Serigne Mbaye Thiam nekk ci région bi bàyyiwul la région de Kaolack benn yoon lépp luñ soxla mu ngi ciy taxaw mu ñu koy defal ba tey ñu mun lii ñu mun su ko weesoo moom parti bi aussi dafa nga ko jiite muy madame Aminata Mbengue Ndiaye ñun ñëpp di bokk ci yenente jàmm ci li nga xamante ni mooy développement jigéen ci biir parti bi je pense ku ci ak sa ñaar dërëm indi sa indi sa doole je pense que li ñuy jëmal tey dina jëm ci kanam. xabaar yi bitim réew. xabaar bitim réew Cheikh Tidiane Sarr yaa yor roppalaan bi ana ci ban réew lañ koy dooree. ca Guinée lañ koy dooree wax ci génn àdduna Abbas Ba Abbas Ba nekk koo xam ne ku ñu ràññeeku la woon ca xeex bi mu doon xeex ak ak yelleefu doomu aadama rawatina ci lu soxla nag victime yi ñu doon wax camp Boiro amee woon ci atum 1971 jàpp 1978 Abbas Ba soxna Ndeye Khady jàppal ne daal tegoon nañ ko loxo gannaaw bi nga xam ne nag mu ngi doon jaamarloo régime bi nga xam ne moo fa nekkoon di Sékou yooyu amoon ca jamono sax jàppal ne bu ñu sukkandikoo ci Amnesty international toll na daal ci fukki junne nit yoo xam ne ñàkkoon nañ ci seen bakkan Abbas Ba nekkoon ci xeex bu nu mel ba tax daal ñu tëjoon ko lu toll ak juróom-ñaari atu prison mu mujjoon ko tëdd ci atum moom nag génn na àdduna foofule ca réew mi ñuy wax Guinée Conakry. xabaar yi. bitim réew dañuy jubali ca Mozambique wax ca dëkk bi ñuy wax Palma foofu askan wa ñu nga commencé di daw di uti fu ñu laxatu gannaaw bi nga xam ne nag am na ab song boo xam ne ay jihadiste ñoo ko amal foofu la ca réew ma soxna Ndeye ay nit yu bëree bëri doon ay civil ñàkk sa seen bakkan ca dëkk boobu ñuy wax Palma nekk ca bët gannaaru Mozambique bu ñu sukkandikoo ca gouvernement Mozambique ba nga xam ne moo fësal xibaar yu nu mel askan ba jamono ji ku ci nekk daal ngi commencé di daw uti foo laxatu mu nekk ay fitna yoo xam ne ma nga ameeti foofu la ca ñuy wax euh, Mozambique. xabaar yi. bitim réew ca Gabon moom génn na ca tekk tekkaaralam ba Ali Bongo moom gannaaw bi nga xam ne amoon na feebar bi ñuy wax AVC amal na nag ak jàkkaarloo ak taskati xabaar yi jaarale ko ci journal bu mag bi ñuy wax euh, Jeune Afrique moom ñëwaat na bu baax a baax Ali Bongo ci li nga xam ne moo di wér gi yaramam mu ne jamono ji am na wér bu baax a baax dara jotatu ko te jamono ji sax la gën a nekk ci forme Ali Bongo di ci yokk ne tamit ñi nga xam ne ñoo di adversaire am ci wàllum politique ba jamono ji daal lu muy sàkk si ñoom mooy ñuy def ay proposition proposition yoo xam ne day jëm ci nees mën a def ba ñoŋalaat euh, Gabon waaye bàyyi critique yeeg yu nu mel ndax loolu jëmalewul réew ma ca kanam wax na tamit si lu soxal doomam ji ñuy wax Noureddine Bongo Valentin mu ne ku am xam-xam la te it liggéeykat bu mag a mag la kon nag nañ ko bàyyi mu doxal nu mu war a doxalee àdduna tamit si lu soxal digganteem ak réew mi ñuy wax France mu ne jamono ji relation yi gën naa rattax bu baax a baax mu mel ni Ali Bongo daal dafa fësene waat mooy ca réew mi ñuy wax Gabon donte sax feebaroon na bay doxee bant foofu la ca réew ma. bitim réew ca Soudan lañ koy jeexale wax ci déggoo bi nga xam ne am na ci diggante groupe rebelle yi fa nekk ñoom ñëpp nag daanaka daal jàmm la ñuy ut bu ñu sukkandiku ci xabaar mu nekk beneen doxalin boo xam ne boo moytu daal dina mën a indiwaat jàmm bu baax a baax foofu la ca réew ma soxna Ndeye Khady jàppal ne kilifa yi nga xam ne nag ñoom ñoo signé li nga xam ne moo di accord yooyu bokk ci Soudan du Sud ak déclaration boo xam ne nag déclaration de principe la jaaree ko ci mouvement populaire de libération bu Soudan kuréel bu takko takku amal nañ ak ay waxtaan déggoo jaaral ko ci groupe rebelle yi nga xam ne ñoo fa nekk ngir daal ñu fexe ba jàmm mën a ñëwaat ca réew mi donte sax foofu foofule ca Soudan ñi nga xam ne ñoo nekkee ca Soudan du Nord Soudan du Sud seen relation daal dees na koy xoolaat bu baax a baax ñoom daal lu ñu doon sàkk moo di Khartoum bàyyi lépp loo xam ne jëloon na ko comme dogal jëm ci état religion maanaam état boo xam ne ci diine lañ koy tënk. xabaar yi xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyoo. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak euh, bëccëg bu mujj bi nag jëm ci CAN 2021 bu benn waxtu jotee Côte d'Ivoire mooy laaleeg Éthiopie Madagascar di laaleeg Niger Burkina Faso di laaleeg Congo bu ñeenti waxtu jotee Sénégal di laaleeg Eswatini bu ñeenti waxtu jotee ca sat la Dior ba ca Thiès Nigéria di laaleeg Lesotho Sierra Leone di laaleeg Bénin Cameroun di laaleeg Rwanda. bu juróom-ñaari waxtu jotee centre Afrique di laale ak Mauritanie Maroc di laale ak Burundi Mozambique di laale ak Cap Vert démb nag Angola dafa am ndam ci kanamu Gabon ñaari bal ci dara Burkina Faso am ndam ci kanamu Soudan du Sud benn bal ci dara Égypte moom dafa lapp-lapp yu métti waa Comores ñeenti bal ci dara Malawi nag moo bett waa Ouganda daal di leen éliminé Malawi qualifié na ginnaaw bi mu amee ndam benn bal ci dara RD Congo am ndam ci kanamu Gambie benn bal ci dara Togo ñàkk ci kanamu Kenya ñaari bal ci benn ndam lu rëy li teg ci ak qualification réewum Gambie nag fédération gambienne bu football jël na ab ndogal daal di yokk contrat ki nga xamante ni moom mooy seen entraîneur bi di doomu Belgique bi di Tom Saintfiet moom nag yokkoon nañu ko contrat am ci diiru juróomi at ñu dem ci dënd ko Europe éliminatoire mondial zone Europe ñetteelu bëccëg bi tey Azerbaïdjan moo laaleeg Serbie bu ñeenti waxtu jotee Luxembourg di laaleeg Portugal bu juróom benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili Slovénie Monténégro di daale ak Norvège Gibraltar di daale ak Pays-Bas bu juróom benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom Chypre dinaale ak Slovénie Slovaquie dinaale ak Russie Croatie dinaale ak Malte dellu siwaat fii ci Kaolack waxtaanee wàllum boxe nag ak président ligue bu boxe bu Kaolack nag di Ousmane jeju moom nag dellu siwaat na ci jafe yi nga xamante ni moom la boxe am ak xalaatam ci li nga xamante ni moom mooy discipline bi ni mel Ousmane Diédhiou la ñuy déglu ci micro noa bi yaay. boxe Kaolack instant bii fi mu nii dafa gën a feeñ bien vrai que nag fesoon na feeñoon na ndax d'habitude gala yi ñu doon dem au niveau de Dakar bu ñu fa demee dañuy gagné suñuy combat mais du am suite léegi yàlla dogal na avec le nouveau président de la fédération dafa jël indi benn programme am championnat de boxe la bëgg def au niveau du Sénégal jël Sénégal nag diviser ko par zone léegi dafa jël ville de Dakar def ko muy zone un jël zone deux boole les région telles que Thiès Diourbel Saint-Louis Kaolack Louga ak Tivaouane Matam tout ça mu def leen zone deux léegi bi mu ñëwee def troisième zone bi muy zone trois muy Ziguinchor Ziguinchor moom mooy zone sud bi moom boole Tamba Kolda Kédougou Sédhiou tout ça ñu def ko benn zone léegi nag actuellement fi mu nii ñu ngi ci commencement championnat bi maanaam dafa def challenge pour débutants yi léegi dañu bëgg a récupérer les débutants pour jéem leen a yéegal espoir def leen ay espoir mu ne léegi day def zone bu ne mu def ay championnat def na ko Dakar jóge noonu ñëw def ko Louga ñun nag participer nañ Louga dem nañ Louga bi ñu demee yóbbu nañ fa heureusement six éléments bi ñu demee les six éléments am nañ ci trois finalistes tels que Bella Diallo Ousmane Sy ak euh, Moussa Diamanka di doomu Kaolack def fa lu rëy siggil Kaolack muy ndam loo xam ne nii tamit lu ñuy savouré la ñun suñu box bi Kaolack fu mu nii bu ñu defee tournoi débutant bi ba pare les finales léegi dañ koy jël yóbbu ko Dakar léegi nag ñi qualifié final ñoo ñëpp dañ leen di insérer dans l' équipe nationale am nañ catégorie lim moyen ak euh, benn mi lourd kenn ki 57 la kenn ki 69 keneen ki 81 kilos licencié yi instant bi ñu ngi ci à peu près 37 yoo xam ne nii déposé pour seen licence ni ñu ko waxee ren dafa xaw a cher ak ñun moo tax fédération bi ne ne dana ci jàpp licence bi day ànd ak couverture médicale boole ànd ak assurance. ma ngoog Ndeye Khady gannaaw bu ñu la ñaanalee kandaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat jërëm yi jàngin jëf. li ci yéene yi.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 liggéey Abdou Diouf fa cee la joon Ablaye Wade fa koo tële woon Macky sàll njiiti réew mi tey moom fa cee daanu ba xalangu te moo yéene kaay xëy samp ab laaj ne waa lan moo tax président yi fi mës sa jaar yépp fexe ba sénégalais am emploi xëy fañ cee daanu ñoom ñëpp Serigne Saliou Gueye ma ngay wax la ko waral ci biir yéene kaay bi la Soleil yéene kaay na ko monte Macky nag fexe ba ndaw ñu am xëy moo ko teree nelaw de mi ngi ciy def lépp lu mu mën ndeysaan te jàmbaar la nag de turbine yéene kaay na ko dee jàmbaar la ko yërëm ndax jafe-jafe askan wi fa ko wër ndombo foo xool rek nit ñaa ngi ay jafe-jafe ah, yow seetal borom kër yaa ngi yuuxu ndax xamuñu liggéey nappukat yaa ngi jooy ndax gisuñu jën yu ñu napp jàngalekat yaa ngay xonk ndax lañ leen diggoon joxuñu leen ko ñiy liggéey ci wàlluk santé hôpital yi ña ngay ndax am ay jafe-jafe ñu ne déetewaay nag li askan wi di dundee maanaam lekk lépp a cher fi mu toll ni fa yokk dund gi yéene kaay bi na jafe-jafe yi bëri na ci réew mi de wal fajiri yéene kaay na ko ma yokkal la ci liggéey ci wàlluk santé dañoo seetlu na daal par parloo fa xam ca seen biir yaay gis ñoo xam ne fañ leen di jox lii bañ koo jox ñële defal ñii lii bañ koo defal ñële ba tax fi mu toll ne fa ñoo mer jëmale ci jëwriñ ju ñu dénk wàllu wér gi yaram te loolu it ko war a lijjanti laneen lu makki war lijjanti mooy ñi nga xamante ne fa ñoo amoon liggéey ñu mujj leen dàq te lépp ak bi moo tax fañ doon liggéeyee entreprise société amatuñ xaalis bu buñ fayee ba tax ñu dàq wàññ seen i liggéeykat l'observateur jox kàddu ñenn ci ay borom kër yu xamul liggéey di dund lu muru du daj ci taxal yow seetal aji sow nee na man dépense buñ togg ceeb xañ sax fi mu toll ni xamatuma ko Massaer Gomez ne man moom fañ maa génnee fa ma luye woon mënootumaa fay sama nijaay moom a hébergé këram maag sama njaboot gi yëpp te fañ may may ay ndesitu jën ma jaay ko ngir mën cee dundal sama njaboot gi ndeysaan lii métti na Serigne Modou Kara Mbacké ne man li may ñaawlu mooy fitna ji amoon Sénégal ci fan yii te loxoy ñëpp ci nag li am nag gàcce la ndax suñu réew mi Sénégal fañ ñu doon roy ci ak dal doon ci jàmm suñ demee nag bañ gis safaan ba loolu baaxut nee na état dëgg nguur ko war a taxaw jàppale askanam te njiit réew Macky na ay mbir yoo xamante ne ne su ko defut ngir soppi réew mi dana am ay jafe-jafe de maa la ko wax kàddu sëriñ Modou Kara yi mi ngi ci vox populi waa aar suñu moomeel mel ni ku ko sëriñ bi Mbàkke gis nga fitna ji amoon fii li nga waxee dëgg lu ji njaaga Ousmane Sonko la ak njiit réew Sall ba tax jéebaana nañ leen ci le mandat yéen a kaay yéen a kaay bi di libération naka ñu libéré ñetti yoon ginnaaw buñ ko tëjee kaso mooy Guy Marius Sagna li ko takk der teg loxo moom garda wii ëpp na fanweeri yoon de fi mu toll ni nag ñi rafet lu taxawaayam dajale nañ ay millions ci internet bi ngir jëndal Guy Marius Sagna oto ndax moom fay xeexal askan te amul oto mbiri Ousmane Sonko yi mooy ne fa ñoo seetlu na daal ñi pare ngir ànd ak moom fa ñoo bari lool Sonko Sonko enquête yéen a kaay na waaye xée daf leen dànk naa ñoo xam ne ñoo Ousmane Sonko bokkuñ gis-gis te fañ doon xuloo ak a ŋàññante démb tey ñu bëgg a ànd ak Sonko léegi kon Sonko daal seen parti ba Pastef fa mel ni saako bu ubbeeku rek ku ñëw rek ñu dugal wala boog lan moo xew réalité politique la wala professeur Moussa Diaw ne politique daal yi ma xamal mooy la wax ak réalité fay wute Jupiter Fay ne wut nguur fa làmboog yu bëri li bëri Sénégal ba jéggi daye nag mooy parti politique yi xapp ak lakk lañ réew mi yéen a kaay ne waa nan la ñuy def ba dakkal ko Dakar Times moom di ñu xamal ne Karim Wade fa soppi doxalin mu nga bëgg a taxawal ab fond xaalis bu bari bu naar ya nekk Qatar dugal seen loxo lépp ngir suqali Afrique njiitu réew bu Congo ba dem fan yi Qatar Karim Wade dugal na ca loxom nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne élection locale yi nga xam ne nguur gi fa toxal bomb bu nar a kalaate la de ndax ñu bëri xànduñ ci rawatina ku jégi laas yéen a kaay ñu ko xamal si du quotidien dëggal ko ne Macky nag toxal gii mu ko toxal ci far force te gaañu ànduñ ci yàq na dialogue yaaw seetal Macky 2022 la wax moom ñam àndal ku jégi na ko fa ragal ne fa nga ko a booleeg wote député yi te duñ ko nangu société civile bi ne nañ ko amal 2021 critique yéene kaay di ñu xamal na am na ñaari député yoo xam ne seeni mbir ma nga ca taabul Moustapha Niass ba fañ ko war a lijjanti Déthié Fall la ak Issa Sall ba nekkoon pur kii fa bàyyi partem ba kee ñu dàq ko léegi seen ndomba tànk député yi fañ ko war a lijjanti di Les Échos yéene kaay na ko xaw ma kan waaye Issa Sall moom doomi Kaolack ya Ziguinchor du kenn ku may Abdoulaye Xumma responsable APR ca diwaanu Kaolack ndangaan a yaw seetal ñaari million ak genn wàll moom la leen jox ngir ñu fay seen dëkkuwaay ya ñu ne déetewaay Abdoulaye Xumma yëkkati ñetti junney ticket pour lekk xañ l'évidence yéen a kaay ñu ko xamal ba tax étudiant ya fañ koo gërëm na ko def nga lu kenn defut ndax ñun wër nañ ba sonn kilifay Kaolack yëpp responsable yëpp nag amul kéekaa dem nañ fa ngir sàkku ndimbal ñii faale wuñ ñu ñee di ñu dig yow nag fa ngaa dégg suñ jafe-jafe rek yaa ñu sa kàddu wax ci lii mooy leader yeneen leader yu APR muy Cheikh Oumar Anne ak Abdoulaye Daouda Diallo fa ñoo bëgg a amal rassemblement mbooloo mu bari ca diiwaanu Podor ngir wane seen ànd ak jàppale njiitere Macky Sall l'évidence yéen kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom Sud Quotidien mooy université Sine saalum jàngalekat ya ña nga mer ba futtu di yooxu seeni jafe-jafe tàggat yaram Sénégal Swatini tey bu 16h jotee bëccëg bu mujj ci ñu war a tànn dem Coupe d'Afrique Aliou Cissé nag 3 moom la bëgg a réussir de ko xamal record yéen kaay na ko man sama yoon nekku ci loolu nañ fexe daal football football bu rafet bii tamit na bari li bari léegi Sénégal mooy faat bakkan yaw seetal ca diwaanu Kaolack ndangaan quartier ba ñuy wax Medina Baye Niass benn xale lu góor bu am fukki at ak juróom-ñeent tudd Assane Cissé moom la nu bojji paaka mu faatu ñàkk bakkanam allah l'observateur moo ñu ko xamal turbine yéen a kaay dëggal ko fañ ko bojji paaka ci dënn ñu yóbbu hôpital mu ji faatu ka ko bojji paaka nag xab xale lu góor la moromam